mi jege na la euh, yal na ko yàlla xaare àjjana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors buñ paree dañuy dem déglu beneen témoignage bi nga xam ne nii tamit euh, kii di Mara Niass def na ko mu nekk témoignage bu am solo waaye tamit texte di si delawaat xel bu baax a baax kii di balaa Balago sekk nañ dem déglu ko kii di Mara daa daal di si plateau bi dañoo dem denc seen wayjur sërif soxna si te ñu àndoon ci xoolal lu metti loolu. ñoo àndoon ci soog lu metti yàgg na fi ñoo àndoon ci soog bi soxnaam. Oh. akub taalibeem baay bu baay bu moom jàpp naa ne ñu ngi ko denc booru xombal bu ma juum. waaye sërif dañ koo denc ci naaj wu tàng jër ci Touba. ñëw denc soxna si. te soxna si ci soog bala faatoo te soog bala faatoo même oto. nga xam ne da ngaa dem suul sa way jur bu góor ñëw suul sa jur bu jigéen. oh loolu metti waaw ba tax waali na xalaat loolu sërif ti laa la. ak njabootam gi mu fi bàyyi woon te ba tey ñoo ne ñu ngay dëgër dëgërlu. te waali gaynde la leçon nag mi ngi ci moom bàyyi leen bu dee amee yéen tamit sëriñ si bu leen di ñi yor micro yi ñëw naan sëriñ si benn sëriñ waxu ñooñu est-ce ay sëriñ la est que ay sëriñ lañ. waaw génn ñëw daan ne Wally sekk dañ koo liggéey ak Thione Seck dañ koo liggéey dañ non nañ ba loolu. par la nañ ba loolu. bu doon bu ma doon may Wally ku ko ci wax dama lay pelante nga ñëw na ma kan moo ko liggéey boo ma indilul ay preuve ñu tëj la ah mais da ngay jaxase famille jàmbur wala nga yóbbu fitu jàmbur kenn liggéeyu ko yàlla suñ boroom ñëw ak i dogalam. Mm-hmm. tawat ñëw ci tawat ñëw. Mm-hmm. suñ boroom yóbbu ko kenn liggéeyu ko baleen jàmbur. ndeysaan baleen ko waale ñu ngi lay jaale yàlla na la suñ borom may xolub muñ te saa boroom dana la kattanal dana la taxawu saa boroom du tas sa yaakaar incha allahu rabbi waali ballaago seek saa boroom dana la taxawu dana la kattanal lu metti yàgg na fi xoolal li ma jël ci Serif Abdourahmane Fall Tilal mm-hmm. te xale yow ndaw waale leen gën a fent ci àdduna te waali bu doon kersa mooy nga nangam ku la li nga def ci sa yaay lépp wàcc li nga def ci sa baay lépp wàcc nga fi ne ñuy wax loolu nañ dem góor góor lu ci seen nday yeek seen baay yi mm-hmm. waaw te bala nga noppalu gis naa fi ñoo xam ne nag dañuy profitoo doon yàq coon doon yàq jaaga lu ne doon ko wax lu ne doon def lu ne tey nga war ngaa ruusa taal sa téléphone di ko jaale mm-hmm. man mënoo maa rey ba noppi di ma dëjal ndeyam bàlleel ma de damaa saago non non du yoon. mënoo hmm. maa waay wax wax joo xam ne du ma a deewuk armeel nag wax nga ray ma rayub xol yàq sama guddi googu man mentalement ma dee ci guddi gi. dee deeyuk ah dama ko man non am na wax yoo xam ne day day ray xol dangay ngay dee. dafa métti ba pare sama dëj ku fa ñëw mas ma saaga man. billaahi samay mbokk na na na nañ ko dañ ko génn dëj bi. acca mooy noonu kàddu yi nga xam ne nii kii di sëñ Mara moo ko yëkkati mu nekk ay kàddu yi nga xam ni kàddu yu rafet la jëmale ko si kii di Wally Ballago Seck parce que tamit ngeen koy dégg mun ko lu metti yàgg na si àdduna parce que tamit dem ba exemple yi nga xam ne nii mooy sëñu Wally Ballago Seck naan ko moom mi perte maanaam moom muy euh, dee maanaam si accident génn àdduna si accident waaye tamit ànd sekk kii di soxnaam mu doon li nga xam ne tamit euh, lu metti la alors Ousse na nga déggee maanaam kàddu yi. waa alhamdulilah kàddu yu rafet. Mhm. yu rafet nag maanaam kàddu yu dal xel. ak mhm. kàddu ngëm. Mhm. ak dolli nit iqam euh, ñu fay jaaraale. ñun waa Télé Sénégal di jaalewaat Wally Ballago waaye nag di fàttaliku jàmbaar jooju di Serigne Abdourahmane Fall Tilal xaddim sëriñ Abdourahmane Fall Tilala xaddim ndax nag ci bis bi ñu jëm suba incha allahu rabbi muy poroxaan mhm. ca doon dem ngir jëfee ji ndiggalu mhm. sëriñ muntaxa ba yàlla jël ca bakkanam foog naa nag ab murit bu wàccee ci ndigal rek wàcc na waaye nag sëriñ dem dem gu doy mhm. muy sëri shérif dafa dem ànd soxnaam ak jóorinam ju mag juñ naan bu fay Chérif Abdourahman ci péage bi kon lu metti yàgg na ci àdduna mhm. ñoom sëriñ Yusufa Fall mu sëriñ Abdourahman Fall Tilala mhm. jóg denc seen waajur wu góor denc seen waajur wu góor pare dem denc seen waajur wu jigéen xool nga loolu àdduna yàgg naa métti ku sànq ne <laughs> gën a métti la amu fi ku dem denc waajuram wu góor mu doon sa lépp di sa sëriñ di sa kilifa nga denc ko ba noppi nga jugaat leer na li yow bàyyi ngay doxi sa waajuru jigéen ngay denc waat Mhm. loolu loolu dara gën a ko métti waaw ah, dara gën a ko métti barki de moo njaay fii ko ñi rachid mhm. la jëppal benn kër lu mat sept personnes dem ca wallaay sept ñu denc ñu ñu ranger nii jullee mhm. denc jour boobu da ngay wax ba si yàgg dégg da ngay def ay di di interview nit di ko laaj affaire yi ni mu demee te ba si yàgg dégg ay si ginnaaw am ni yuux. ne keneen dem na keneen dem na. gis nga yooyu. moo tax nag fan ñu indiwaat <laughs> tawféex mooy sunu borom rek ay sunu borom. sunu borom rek moo ah, mooy wute waali nag waali Serigne Abdourahmane Fall mooy kilifaam. Mm-hmm. te da ko bëggoon lool. wallaay te waali bàyyi Fall la. bàyyi ko la ni neex na da nax de. man sama xol bi am na ku ci des ba léegi demam gi sax mhm. du nga wax waaw demam gii laa ilaha illallah man daf may daf may dépassé mhm. daf may dépassé daf may dépassé mhm. des fois daf may dépassé Sëriñ Abdou Karim Mbàkke kenn da ko a doon kilifa barki démb la denc taawam muy Sëriñ Gala Sindi di barki démb la denc taawam xam nga waajur wu nekk da ngay ñaan yàlla sa doom denc la hmm. mais li gën a métti mooy denc sa doom wallaahi moo tax ñu ne la sunu yaay kinne ndeysaan moom yi da ko affaire bi da koo dëgg boo déggee si euh, kii di euh, Mbaye si Ndiaye dégg nga sax wax na ko mm-hmm. nee maanaam demu demu demu kii di euh, doom jooju taawam boobu di moom yi mm-hmm. da ko trop trop ba lu ko waroon dal mun na ah. am sax fa la ko ah. jëlee kon nañuy nañuy bàyyi xel yu bëri gis nga Sénégal moom moo Sénégal xanaa xamoon yu baax yee fi ëpp Sénégal yu baax yee fi ëpp mhm. yu baax yee fi ëpp mhm. waxkatu lu baax yee fi ëpp. wallaay def na def. waaye nag Sénégal c'est <laughs> bu mu tere ñu lu lu lu lu bon la ñuy fësal. Mhm. yow mu wax lu bon la ñuy promouvoir yow mu wax lu bon la ñuy gëm. yow mu wax lu bon la ñuy kii tey ji da nga koy xool sax ba ci ay rappeurs yi. ay zibxa gumba silmaxa mhm. duñ woo rappeurs yi ba woo ko raki Ablaay Mbay bi woy mhm. duñ woo woykat yi ba woy ko woo ko ne bokk ci parce que dafa am fu ñu leen di dëkkal saarement ñi leen di saaga ay ndey ak dana wax lu bon mhm. ak di critiquer ñoom lañuy woo di leen jox xéewal yi kon nga gis ni ñun su xeetu dund danoo dépassé boo waree taxaw sax wax vérité yow la ñuy maanaam dañ lay tuutaal dañ lay def ko ñàkk fayda benn ci ñun people la ñuy def suñu émission bi people la. Hmm. waaye ñun people bi ñuy def day fekk nga nekk ci dëgg boo nekk ci dëgg duñ ànd ak yow. ñun gisoo li am la ñuy wax. <laughs> am la ñuy li war a wax la ñuy wax ni mu demee la ñuy wax maanaam na wax yu baax yi Sénégal ni ñuy génne yu baax yi. Hmm. gis nga ñiy dem ci hôpital yi di dimbali nit ñi nañ koy wax. Hmm. ay day ngistal ak bu caméra tàkkul sunu yoon nekku ci. mais sëñ maa am Aziz Dabassa doon wax naan booy def lu baax euh, mun nga ko wane parce que am na kenn mhm. ki nga xam ne ko yambar yi mel ni man. am na ko voilà am na ko. moo booy booy maye 5000. Mhm. buñ la vidéo nangul. Mhm. nga maye 5000 bi taalibe bi. gis nga vidéo boobu ngay posté. am na ko yor quinze 15000. wallaahi bu la gisee dina jéem a def ni yow maye 10000. wallaahi. ndax da koy yàqi rek. fii maanaam yii di wax buñ de ñun maanaam nañ góorgóorlu ba ñiy def lu baax buñ déglu ñuy wax de. ay day ngistal lu lu caméra yi tàkk mu def nii garaawul déggal yow lu baax la yaa ngi koy jëf jëfal rek nee naa la jëf ju baax ku ci ngistal doo ci am bàkkaar binduñ ko fenn jëf-jëf la ndax innama ahmaalu binniyaati te yàlla sax xol lay fay ah, xamoo ndax maanaam mu koy def innama ahmaalu la wax